pharmacie nationale d'approvisionnement Fra mobile voilà camion baa ngi nii ci buntu région médicale bi mu ñëw par convoi vaccin yi ci coronavirus bi benn camion baa ngi ah bii moom bu mag la beneen bi moom bu yemamaay para bii paramobile lañ ci bind bale yegsi na yegsi na tamit para xeetu projet la eh? ci biir euh, ministère de la santé ñuy yëngu ci wàllum vaccin yi camion yaa nga mbokk yi cëru Kaolack baa nga ci kanam tuuti wax limu li Kaolack am euh, ci vaccin yi camion yaa ngi nii yegg si na région médicale bu Kaolack. région Kaolack rek déjà am na ci juróom ci première phase bi juróom ñeenti junne ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom benn muy neuf mille cinq cent cinquante six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 ñàkk bi àddina sosoo ba léegi ñun ñii dañoo ñàkkoo ñàkkoo ñàkku te ñu ngi nii yéen ñi yéen ñii ku fi ñàkkul est-ce que am na ku fi masul ñàkk amul parce que bu ñàkk ñàkk bu amul musibaam donc ku ne ñàkk yi baaxul man dama ne xamoo lay wax ñun nag ñun aussi danañ créer suñ suñ stratégie bopp ba nga xam ne ñi ñoom fu ñu jaar bëgg a yàq buñ leen fa jiituwut aussi bu ñu demee ba pare buñ ñëwee ñoom it lañ wax dinañ ko yàq parce que ñàkk nag dañ ko war a def pour man ci guen lolu dinañ ci bolé agent de santé yi dinañ ci bolé relais yi dinañ ci bolé autorité yi dinañ ci bolé calife diine yi dinañ ci bolé communicateur traditionnel yi dinañ ci bolé bàjjanu gox yi ak képp ku nga am nga cadeau dañ soxla sa cadeau dinañ dem gis la nga wax ci pour nit ñi kat ñak yi mom rek lañ am pour mëna guen ci jangoro ji bu ñu ñàkkuwul musiba dal mi je crois que dinañu dinañu dinañu ko def Euh, ci ci fan yi di ñëw peut-être tey wala suba au plus tard ñu créé bu nga xam ne ni comité bi mooy suivre mbir mi léegi li ci des mooy dañuy xaar au niveau national bu ñu defee lancement bi rek au niveau national président de la bi jiitu ko ak ministre de la santé ñun fii ci région bi ñun tamit dinañ lancé ñakku yi te yaakaar naa ne ku doon weerante xanaa soo gisee gouverneur njëkk a jiitu Talal loxom ñu ñàkk ko war nga wara xamne <laughs> mbir mi du affaire caaxaan du affaire caaxaan man maay njëkk jitu talal sama loxo ñu ma sen chef de région top ci ñeneen top ci comme ça ñu xamne kilifé jité région bi ñakku nañu bu doon gañ ñun duñ ko def lolu je crois que lolu xana suñ ko waxé nak war di warona a jeex wax ji warona na jeex su fekkee ne gouverneur jitu na ñàkk médecin chef région jitu ñàkk yeneen kilifa yi jiitu je crois que xana ku doon wax nak war nga noppi loolu dal bëggon nañ ko wax euh, laaj laaj nga ma léegi ci tolluwaayu jangoro ji jangoro ji ba léegi mi ngi doon law ci région Kaolack ah euh, ci tay ji nombre de cas yi ngi tollu ci junne ak ñenti témèr ak fuk ak juroom ñaar muy 1417 juroom ñaari témèr ak juroom fuk wër nañ ci malheureusement nak lu témèr ak ñaar fukki ak benn bakkan rot nañ ci ñooñu ñu ngi leen di jaale seeni i mbokk yal yàlla xaare aljana ñeneen ñi ñi nga xam ñu leen di traité mi ngi toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne aussi dañ leen jàllale ci yeneen hôpitaux yi ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-benn ngeen xam ne rek bon ba léegi jàngoro ji mi ngi fi nañu góorgóorlu yàlla dimbali ñu. nañu góorgóorlu.